47 degré. bu fekkee di ëpp. Hmm. dem ci bande de Gaza. nekk xam dañu doon ñu dem ci ay ay ñu leen bombardé. waaw. ma xalaatee loolu ñoom bi daal lekk ñu ko suur yi wàcc seen kaw. Hmm. mu am am am gàcce. Hmm. léegi nag lu maa man maa ngi ci jàmm. ndax maa ngi tëdd lu bëgg a tëdd te bande latéral mi ëpp. te ñooy si amuñu si dara dara dara. nit ki dina nekk ci na kenn koo xam ne ma nga ca waaye nekk nekk ci état bi nga def. donte loolu loolu du gàcce xam nga la am solo mooy jàmm li ko yàlla defal mu xam ko mooy lu am solo ci jàmm ndax nit ki li la yàlla defal boo ko xamul cant ka ca war doo ko def. te ñàkk sant xéewal day rekki xéewal wal xiyaasu billah waaye man mii di wax ak yow bisu set ma tuur ci xéewal ak ci lu dul loolu sax waaye xam nga fooy dellu ci coobare suñu borom bi xam ni li ma waxtaane léegi rek loolu mooy coobareem ci ñoom metti na waaye yow nga yëg ni coobareem jooju mënoon naa dil si mën naa mënoon naa dikk ci yow mënoon naa dikk fii nu nekk it mooy li ma doon wax léegi fii na xam nga foofu am na ñu fay gane àdduna fan yaa am na bombardement boo xamante ni soxna sim dal mémoire meeg lépp yàqu am na xale boo xam ne bombardement bi bopp bi la dagg yooyu xam nga ma nga fa moom moo xale yooyu lu ñu def ma jigéen ñooñu lu ñu def coobare suñu borom ak mettit lu ko la leen dal nga mettit lu ko méthode gi ci loo koy jaarale mooy ci sababub sa bi ci tooñaange ndax jullit bu tooñee sa mbokk jullit daf laa war a naqare bu ñu tooñee ku dul ab jullit sax daf laa war a naqare xam nga fan yële am nañ fi benn kii boo xamante ni ñu naan pour bu ku ab chrétien faatoo gunge ge mën nga koo gunge jiw mi ak jullit mën ngaa dem ba ca sëg ya mën ngaa dem ba ca dëj ba bu dee lu dagan la wala lu ñuy def la li li ci li ci gënut daal mooy lekk fa lu dagarut ndax lañ doon wax ci koo xamante ni gëmut noonu giñ bëgg a jël teg ko ashiddaa alal kufaar ak ruhamaa baynahum ca jamono bam doon xew ak jamono bii kontex si bokkut yow da ngay am chrétien boo xamante ni moo lay gën a yërëm ci jullit moo lay gën a bëgg ci jullit kiñ naan ab jullit la bon moo lay gën a dimbali ci ab jullit te te moo ne bokku gëm-gëm te mooy ëpp ndimbal ci jullit ñi mooy ëpp yërmaande ci jullit loolu jamono bañ doon wax naan fi ne ab yéefar waru koo bëgg ak da ko war a noonoog des ko war a def nàngam mooy ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi mi ngi dund ah ñu di ko génne di ko bundu di ko ambargo di rey ay nitam di génne nitam di leen teg lu diis ñooñee ñi leen ko leen teg loo leen teg dagal ak képp ku doxewaat woowu doxin waaye koo xam ne yéen dëkk yàlla dogal na moom la gis mu doy ko mu jàpp ko na ci jàmmam na ci diineem ngeen séq jàmm séq demlante séq dikkalante séq lépp kooku li nga bëggal sa bopp nga ko war a bëggal waaye ñi jàngale jàngaleen woo dangay dem ba en waxuma la sax ku dul ab julli sax waaye julli sax da ngay dem ba di ko en loolu tegul fenn diine du en diine pour jàmm la waaye du pour fitna xanaa xamoo maa ngi koy am ñu ma koy waxtaanee bët ki de ma ne ko dafa bari lool nag soo koy waxtaanee man naa indi lu rëy rëy ci nit ñi waaye yow yàlla dana dogal yow sa gis-gis leer ci sa dégg leer ci ndax xam nga diine ak dégg daf ci am solo ndax dégg la yonent bi saa sa dafa wax ne ku yàlla bëgg ci moom yu faqih ko fi diine da koy dégg la diine dégg-dégg yi nag kenn ni la yàlla ubbee rek la mooy ni ma waxoon léegi comme nii ñun ñii ñun ñu rek noonu la moom. tey fi mu ne liñ ñu tey ku génn ci lislaam dañ ko war a rey loolu dafa am na ko war a noonu ba tey xam nga fii ne ku génn ci diine nii ne ne cause bi la ciy génne yow du cause bu yàq yàqoo amoo intention yàq sa yoon nekkul ci loolu yow daal yaa nga ca leneen daal dem nga ba yàgg rek nga de ca leneen sa yoon nekkatul ci jullit ñi waxoo leen lu ñaaw defoo leen lu ñaaw bundu xataaloo leen te réewoo leen a ci seen diine te réewoo leen cee wax yow daal yaa nga ca sax mbirum bopp daal kooku jërul def dara xam nga xam nga lan mooy xekk ma ku ñu ku ñu bu génnee ci diine ñu ray ko mooy lan ah ñaari nit lu mu génn li ci gën a bari du ca waxatu lu baax. bu ci pas-pasam yàqoo rek day fas yéene nit ñi seen pas-pas yàqu ci loolu ci jamono boobu ku génn ci diine rek li muy njëkk a xëntewoo mooy lu muy yàqe pas-pasu nit ñi di wax ci yonent bi ab safaan di ci jëf ab safaan di duur di teg di wax yu ñaaw yoo xamante ni kenn du ko mën a dégg jullit bu ko dégg rek sa sa dënn rëcc jullit bu ko dégg nga ne loolu du mën a nekk te booba nii lislaam mel melagu ni mi ngi mel ni ñii doo ngi di ab groupe nii yonent bi nekkoon ci suñu biir di woote kenn ko dem bam yag rek mu dal di genn man dal affaire bi lim may nuur dal affaire ngor la affaire bor la ki dal dafa melni ci bopam la nek ki dal dafa melni lim nuy wax ki dal nangam. saytaane dugg ko mu am nu muy xalaate am nu muy bam yag mu yàgg ko fassiyene nak séene nag ko rékkeeku waxati lu bax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallam waxati lu ab safan rek lay wax li yeneem lépp it ak yitem lépp it mooy nit ñi genn moy don waxina moy don waxina fassiyene séene dugg kër julit bu nek wala jotaay jullit bu nekk foofu ñaari jullit toogee mu ñettal leen te lii dox ci li muy xëy ba li muy gont mooy rikki seen pas-pas ci diine kooku lii tax ñu ne léegi kii moom ku génn nañ ko daal di rey du bu mu wax waaw ak lu mën a xew rek bu duñ bëgg mu wax lenn loo xam ne day yàq pas-pasu nit nit loolu boobu xekk ma bokk na ci waaw ndax boo seetloo te yonent bi sallallahu alayhi wasallam am nañu génn ci diine liñ waxaat kenn mënu laa wax lu mu doon ci safaan jëmale ko ci am na ñun jéggalu leen am na ñun jéggal na leen xam nga am na ñun ci lu leer jéggalu leen ba ni mu génnee àdduna ñëw nañ ci Abu Bakr Siddiq jéggalu leen ñëw nañ Seydina Omar jéggalu leen Seydina Usmaan jéggal gi ci jéggal ñenn sax andi na ko ay firnde radiyallahu taala anhu ajmain loolu lu mu doon ci diine dafa am lu ko waraloon léeg-léeg nag fii ne da ngay gis koo xamante ni tey li muy li muy waxee ci diine contexte ba du ko du ko nit ke du ko sédd waaw la waraloon environnement ba ak ya nuyu yëpp du ko sédd da koy jël léegi yan ko ku mel ni man baa yan ko ke baa yan ko jël da fekk na déedéet doxiwul noonu nit ki war ngay rafetal ndax fi ne foofu ngay wax bande Gaza du ay du ay jullit doo nga fa nekk ay chrétien nga fa tay siif yi def lolu ab état la waaye du càggee ni siif yi ku dib rek ñu ne ca nga bokk mi ngi mel ni jullit ñuy def ay attentat lenn ci ay jullit ñuy tuddoo ay jullit ñoo koy def wala bu la neexee nga ne ay jullit ñoo koy def bul ni kon jullit ñi bul ni kon siif yi am na ñoo xam dañ naan siif yi kay nangam siif yi nag boo demee siif yi ci biir Tel Aviv am na ñoo xam ne ña ngi fay manifester contre guerre boo demee Amérique am na ñu fay manifester ay siif lañ Angleterre yi di contre guerre di naqarlu la fa xew te moo ne dalul ci ay siif ci ay jullit lay dal kon nit ki la ko war mooy lépp loo xamante ni dal na nit imee rek nit na nekkal nit rek mën na yontu saa sa jàngal na la lool de xam nga léegi-léegi da am loo jàng dangay jàngaat leneen loo xamante ni mooy gën a dëgër loola lépp lu am res yërmande yàllaa ngi ci ba ci ay bayi ma waaw ki wax loolu kay xanaa xanaa bu bayi ko nit nit lim ci bëggut mooy kuy yàq ci kaw suuf ñi nga xam daal dañuy dox ci kaw suuf di féewale nit ñi di perturber di ay fitna di terroriser nit ñi ku mën a doon wet gu mën a féete bu kooku bokk ci kaw suuf la ca la lislaam wax daal kuy def yu mel noonu dog tànk yaak loxo yi nit ñi am jàmm fu mën a féete yàlla na yàlla dimbali def jàmm ci adduna bi def foofee it jàmm ndax loola ab état la gouvernement ñoo ko ab gouvernement ñoo koy def ak ñoom ànd ak ñoom am nañu ne ca biir réew ma te ñoo xamante ne sax ànduñu ci da nga mel tey état Sénégal mën nañoo demoon tey fii doon néewal doole beneen réew wala beneen dëkk te fekk loolu mbiru état la bari nañu ne ci suufu état bi ñoo xam ne ànduñu ci waaye kenn mënut a yëkkati sa baat dégg tax waaye yow moom la war rek mooy yërmande na fees ci sa ngay ñaan yàlla dolli fa jàmm ak tawfeex la ca toftalu it mooy sant yàlla waaw ndax mënoon ngaa nekk foofu te yàlla dogalu ko. bala ca doftal it mooy mettit lu ko la ca def nag mbirum suñu borom la waaw mm-hmm.